man la yu Seck tey jii nag dañoo ñëwoon fii euh, ci suñu mouvement bii di ànd xeex Macky Sall ci departement de Mbacké sanctionné benn bokk yaakaar tey nag ñu ñëwoon yoon daaru comme ni ñu ko waxee woon rek ca départ ba booba léegi ñu ngi continuer woon di liggéey continuer nag teg lépp nag du ko def liggéey suuf ñu ñëwoon tey nag seet si suñu mbokk soxna yi ñëwoon fii doon waxtaan ak ñoom pour yee leen ci bulletin mara ba kenn du ko wotal ci législatif yi incha allah rabbi Euh, loolu nag euh, bi ñu ñëwee nag wax di yàlla suñu xel dal na suñu xel suñu xol gën naa sedd ndax euh, kuréel gii di ànd xeex nit ñi ñoo nu ko gën a bëgg ndax fu ñu jëm rek ñu ngi ñu ngi woo ak di nu di nu tatangal ak dinu def loo xamante ni sant yàlla la bu wér a wér. ñun nag xeex bi moom ba ñu engagé rek dañoo joxe suñu lépp parce que population bi moo nu ñor du suñu bopp moo nu ñor. Euh, lu ne nag ñu ngi koy jot ñu ngi ni menace di téléphone di nu daggal ay saak mais ñooñu dañoo dañ leen a jàppee ay xale yi nit nag bu nekkee xale la euh, dynamique bi mu toll rek foofu nga koy fekk si ci moom. ndax fii réew mi toll ku taxaw bagg jàpp jàmmaarlu ak président de la république taxaw temm ci jëlee ko fii kon ku xam nga ne kon kuy liggéey askan la te gaynde nag moo koy def fit la laaj ak ful la ak fayda nee naa woon naa duñ xuloo duñu xeex duñ sànni duñ sànni xoj duñ toj duñ saaga li ñu def mooy carte électeur la ñu def mouvement bi loolu moo ko tax a jóg carte électeur bu jour élection yi jotee incha allah ñu dem ndànk voté jëlee fi marron beige loolu rek mooy suñu suñu suñu programme ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax ndax réew mi dafa métti euh, barki de maa ngi dégg sama benn xarit di ko wax mu ne réew benn kër toggutu fi reer kenn toggutu reer xale yi ndékkituñ añ rek la kër borom kër gàdd te loolu li ñu ko teg nag dafa yomb ñun ñoo jëloon suñu carte électeur jox ko dañoo taxawaat nag pour la ñu joxe ñu jëlaat ko teyaat ko moom ko kuréel gi nag ci loolu lay dox. xam nga nag euh, dañuy doog a tàmbalit ñi ngi Touba ñi ngi nii woo fu nekk nag ñi ngi war a dem Linguère feek tabaski moo xaw a xat mais bu ñu tabaskee pare incha allah bi Linguère mooy suñ première sortie collé nañ foofu rendez-vous ba pare suñu ci jugee na ma waxee woon rek région par région département par département bu ñu paree nag door génn nag bitim réew. parce que war nañoo war nañoo dem extérieur bi fenn fu nekk ña ngi fay dem euh, fi nga xam ne jotee gun nañ fa danañ fa dem incha allah rabbi pour taxawal ko Sénégal gépp ak adduna gépp danañ ko fas yéene taxawal def ko ay gone nag ñu ngi ci ay mag ñu ngi ci newoon naa ñëpp ngi ci biir dàquñu kenn tàllal lañ loxo ñëpp pour ñu ñëw ànd ak ñu ci lii ñuy def surtout waa Touba nañu xool ràññee xam ne lii ñu ñuy def loo duñoo lank ñoo bañ nee naa woon Touba nee na déet déet jam waxoon dañ caa continuer taxaw ci duñ ci del mas sa deltu ginnaaw tey nag ñi ngi ñëwoon fii yoonu Daaru Rahman seet si euh, soxna Ami moom it nag mu mu bokk ci liggéey bi tatangal nañu wax it incha allah rabbi li mu wax danañ ko wax ñëpp ñëpp dégg ko ñu xam ne mun ak moom ñoo bokk programme te nii mu def engagement yi ñu jël ñoom ñi ngi ci jigéen ñëpp parce que jigéen ñi rek ñoo nu mën a dooleel ñi ngi ci woo jigéen ñëpp ak góor ñëpp nañu jàpp ci liggéey bi pour liggéey bi mën a jàll président Macky Sall du fi am ndam ci Touba. dañoo taxawal benn mouvement boo xam ne dañ koo tuddee ànd xeex Macky Sall mouvement bi nag bi ñu ko taxawee léegi léegi yàggul waaye nag mi ngi lawal ay bànqaas ci dëkk bi tey jii nag ñu ñëw fii nga xamante ne mooy yoonu daaru ñëw fi di leen ko sampal ginnaaw bi ñu gisee suñu liggéey rafetlu ko ba wooñu pour ñu ñëw sampal leen fi mouvement bi ñu am ci taxawaay boo xamante ne tey taxawaay bi ñu am ci mouvement bi ngir liggéey ci ngir ànd xeex Macky ngir jëlee ko fi loolu nag li ko waral mooy dañoo nekk ci réew moo xamante ne tey askan wépp sa ngéem nañ ñëpp sonn nañ ñëpp ngi jooy ndax dund gu seer gu nga xamante ne heure bu xëyee mi ngi yokk te kenn xamul kañ lay wàññeeku te tey li nga xamante ne askan wi moom la ñu gën a soxla ci dundeeku tey loolu mooy yokk di yokk di yokk te yokk gi mu yokk kenn xamul fan la jëm muy ceeb muy diw muy suukar di meew tey jigéen ñi tey sonn nañu ndax koo ci jox dépasse junni wala ñaari junni bu demee marché bu jëndee diw la muy dese du bëri. dafa am ñoo xamante ne dañoo log ñoo log nag boo waxee dañuy jàpp ne lañ log a tax ngay wax ñu aj ba pare bañ koy teen ñun nag dañoo jug ngir tappale yi nga xamante ne mi ngi fi mooy ñoo xamante ne tey président ma ngi leen a jox ñuy dund ba dëgg gi ñu war a wax askan wi wala dëgg gi ñu war a wax président duñu ko def amul lenn loo nga xamante ne teewal nañ ko askan wi wala ñu am lenn lu ñuy représenté askan wi. ñoom ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekkal président tey nag moo tax ñu génn ñoom ñëpp nag di wax waaye ñun daal lii nga xamante ne jël nañ ko mooy mouvement bii di ànd xeex Macky liñ ci jublu mooy fas yéene taxaw xeex ak Macky Sall te ñun ak Macky Sall ba 2024 duñ ci tay duñu ci dellu ginnaaw lépp lu nga xamante ne mën nañ ko dinañ ko def parce que Macky Sall ci boppam mënul nekk ci réew moo xamante ne di Sénégal di foowee réew mi parce que foowee réew mi weesuwul comme ni ma ko waxee sànq nit li ñu ëpp ci li ñuy jëfandikoo muy ceeb di diw nga jël ko yokk ko yokkin boo xamante ne tey kenn mënu koo laal. kon Macky lan la nalar réew mi lu mu nalar réew mi lan la leen nalar tey réew mi tey sonn nañu askan wi tey am nañ lu leen metti askan wi tey xiif nañu kon lenn dong mooy solution bi mooy ñu fexe koo sanctionné ci élection législative yi nga xamanti ne la ñu jëm. parce que nag bu leen fàtte ne waa ànd Samm Jikko Yi ñëwoon nañ fi bi ñuy ñëwee ñu ñëw ci sëñ taxaa Mbàkke wax ko li nga xamante ne mooy wàllum ñaari tur ni ñu lawee ci Sénégal bi ñu ko waxee Serigne Mountakha signé ci këyit woowu nga xamante ne moom lañ ñoroon a jibbal waa assemblée nationale pour ñu criminaliser gu wàllum ñaari tur yi waaye gis nga Serigne Mountakha signé na xalifa Ndiassane te Tiwaawoon ñëpp a signé kilifa diine yi. ba ñu ko yóbbee jox ko Moustapha Niass ak ña nga xamante ne ñooy waa benn bokk yaakaar dañoo xotti loola ginnaaw xotti nañ ko nag lenn rek mooy solution bi seen morom bi yi nga xamante ne dañ ko couloir mooy morom bés bi ñun nañ ko jël xotti ko sànni ko ca mbalit ma loolu rek mooy solution mu jeex. ñu ngi delluwaat ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg benn mission rek la am muy musiba mi nga xamante ni moo nekk ci kaw Sénégal di ab nattu muy président Macky Sall ak benn Bokk Yaakaar ak ñi mu àndal ñu fexe ba musiba moom ñu teggil ko réew mi teggil ko askan wi loolu moo tax mouvement ànd xeex président Macky ak ñooñam jóg. loole nag duñ ci tay dañ ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax xare sax lañu ko tuddee ci ñun te moom lañ ko jàppee ndax njiit lu yeesee nii njiit lu euh, maanaam ñàkk yërëmee aw askanam ni loolu lenn wuru caa so topp lu askan wu taxaw tem jàmmarloo moom ngir jëyee ko fi ñi nga xamante ni nag ñooy ñi nga xam ne ñoo ma yéem man mooy ñi nga xam ne dañoo log muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci list benn bokk yaakaar bi tax ñuy loggi loggi loole moo moo tax wax lu leer te leen ñooñee nag ñooñu yéem ndax bu ñu gisee jafe-jafe yi Touba di dundu département bu Mbacké di ko dund askan wi di ko dund ba pare ñu ànd ak président Macky Sall ñoom di loggi loggi ànd ak moom tooxi doona gi nga xamante ni ak tiis ak métti bi nga xam ne lay teg askanu Sénégal ñooñu jaaxal nañ ma te war lu ñuy wax nag askan wi dana leen jaaxal ndax xam nañu leen ñoom ñëpp démb ak bërki démb fii la ñu taxawoon di wax wax li waa Touba yëpp waxoon ne liste mano bees bi ak président Macky Sall musiba lañu ci réew mi baaxuñu posen saxaleen tane tey ñu bëgg a wëlbatiku ne ñoom ñooy war a Touba ak département Mbacké wax nit ñi ne list bii moo baax liste bi nga xamante ni mooy liste ba nga xam ne day dooleel ngóor jigéen mooy liste bu baax bi loole nu nuñ koy waxee askan yu jaaxal nañu waaye nag ñoom mën nañ ko xay na la ca topp mooy bu ñu bëggee nag jafe-jafe yooyu jeex musiba mi Sénégal nekk jóge fi loolu lenn rek la muy ñu fexe ba liste bi di Maro Bees nga xam ne président Macky Sall ak ñooñom ñoo ci nekk ñu xotti ko taret niñ ko baaxoo baaxoo defee ñun département bu Mbacké ak Touba ak réew mi yëpp fekk si ñu ci bu ñu continuer ci li ñu nekk réew mi yëpp daañu ci fekk si muy yàgg Touba yàgg naa wane ne Macky Sall du waaja département bu Mbacké yàgg na ko wane loole nag ci la ñuy continuer di ca dox la ca topp ñuy wax askan wi ne leen nañu am fulla ak fayda alal ji nga xamante ni président Macky Sall ak ñoom dañ ko yor di ko pasar pasare te tey jii mu fu ne ñu di fa dugalub dërëm loolee ñañ mën a jënd ña nga leen di jënd waaye as gor moom buñ naan kuñ naan dafa jaay ngorom daa fekk daa gorewutoon ñun duñu jaay suñ ngor mukk ñun waa Touba ñun ñi nga xamante ni benn bëgg-bëgg lañu am muy Touba duñ jaay suñ ngor mukk amuñu suñu njëkk la ca topp nag euh, mooy ñu leen di xamal ne fi réew mi toll xam ngeen ne bakkan yi faatu fële frontière bu bu bu bu Maroc ak Espagne bari na lool ñu koy ñaawlu ndax ñun askan wi moo ñu tax a jóg. gis nañu nag kilifa yu bari convoqué nañu ambassadeur ya nga xam ne ñoo féete ca yore wàll ca yore yooyu réew waaye président Macky Sall mi jiite Union africaine jiite Sénégal yuut sax yàbbi ca moo ne de lim bu takku moo ci des faatu ci seen deret tuuru ci ci doomi Sénégal loole Macky Sall waxu ci ñu koy fàttali itam ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yi nga xam ne faatu woon nañu faatu nañu 2012 ak léegi na ci wax lu leer ñu koy conseil itam di ko wax ne ko lim boobu faatu dey lenn rek moo leen tax a jóg muy jot seenum réew moom seen bopp li taxoon a jóg képp ku baax loolee nag bu ñu ko mënta sàmmal sàmmal ñu suñu réew lenn rek ci topp muy mu abal ñu te jot na mu abal ñu ñi nga xam ne itam yàlla dafa dogal ñu faatu njëkk muy dugg ci pale bi ñu ngi koy wax ne ko na moytu bu mu jaar mukk ci bakkan yu toll noonu dugg ci pale bi ëllëg muy jaaraat ci bakkan yu mel noonu génn pale bi kon na def attention bu baax a baax xam ne Sénégal dañuy wéy doon ay bañkat ay gor lañuy doon ñun Tuubaa nag bu ñu desee ci lekk suñu som bi wala suñuy ginaar siyaare suñu kilifa dem julli ji ci jumaa ja sàmm sunu taalibe loolee jàmm danaan ñooy kon nañu bàyyi loolu su ko mënul nag nañu abal sunu ànd euh, boot jeeg euh, ji ci yoon Daaru ñu bëgg euh, ànd xeex Macky la parce que sonn nañ ci xiif bi sonn nañ ci mbar bi jigéen ñi sonn nañ ay at ñuy galeeru benn bés waru la koo yàqal ñu lay fay quinze 15000 francs wala vingt 20000 francs ñu la kaay votel diw yaa moom sa carte ko fa la neex nga koy sànni mais marron beige bii ñu bàyyi ko fi ak croix bi parce que jigéen ñi sonn nañ xiif nañ mar nañ njaboot gi sonn nañ parce que léegi defal añ ma def reer la góor ñi sax léegi dañu dañoo sonn góor ñi sonn nañ parce que seen dépense yi sax demeetul noonu litre euh, litre diw mi ngi doon jar 700 francs léegi mu ngi dem ba 1600 francs loolu jaaduwul gisuñu ci suñu bopp de ndax sonn nañ léegi nii ñu ngi nii léegi la ñuy doog a fi ñu toog dañ doon jaay mais li ñuy jaay daanaka dara demul dara demul dara sonn nañ daal sonn nañ nañ fi jëlee Macky Sall daal nañ ko fi jëlee. man la soxna maam Anta Jigal nekk responsable mouvement nekkal fi askanu bu Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ndax Macky lu koy xeex pour jëlee ko fi rek ci parce que régime bi baaxul koo xamante ni nii. dëgmal nga ko pour daaneel ko rek tëj na la jàpp ci kaso bi muy mel ni suma leader Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly mu ngi mu tëj ci kaso bi te candidature am jàll ñu war a campagne élection yi kon ñu ngi ko ciy réclamer mu bàyyi suñu leader mu génn liggéey parce que dafa am njariñ ci tuubaa nekk na député boo xamante ne nii lépp lu askan wi taxaw taxaw na ci tabaski gii ñun ñim daan jox xari tabaski ñu ngi jooy jigéen ñim daan jox ay sobleeki pombiteer ñu ngi jooy kon Macky saal nañu bàyyil Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mu dellusi waat Touba waa Touba lañ koo soxla loolu ma leen ciy dolli ni leen ku leen jox frigo nan taal consommé ba mu sedd guy ñu naan ñoo ko moom seen xaalis la ku leen jox enveloppe nañu lekk seen xaalis la buñ bis bu élection 31 juillet ca buñ demee ca mbañ gàcc ga ñu bàyyi fi base marron bi seet ki amal njariñ askan wi ñu voteel ko majorité assemblée nationale nañ ko xañ Macky Sall buñ ko ko xañee rek liñ bëgg ci réew mi danañ ko am ndax élection yi bakkanam la ci teg lu ko jaral nañu ko jaral. na dem na dem na dem na dem na dem na dem.